Euh, Cheikh Tidiane nga jox ma élément boobu noonu ñu tàmbalee ci li nga xamante ne moom mooy hôpital Abass Ndao seetlu nañu ko ne amaama dal bi dafa commencé wadd ba xam nga ni wóorul ndaxte hôpital lu ci mel ni hôpital te hôpital Abass Ndao ñëpp xam nañ ne hôpital bu màgget la donc dal bi dem bay wàcc mën na indi ay conséquence mën na mën na rey nit bu ko fa fekkee en plus dañu am li nga xamante ni moom mooy problème électricité donc c'est un problème réellement que population yi c'est un bu ñuy lancé donc ñu wax ni ñu defaraat li nga xamante ni moom mooy Abass Ndao bi parce que nit ñi dañuy ñëw di si fi fajoo donc bu ñu imaginer nga am benn malade mu ñëw di faju au lieu mu ñëw pour faju si mais leneen dal ko donc loolu noonu nekk na problème bu nga xamante ni daal moom lañ indi tey pour hôpital Abass Ndao. que doon na lu grave ah. Euh, mm-hmm. parce que fi nga xam ne foofu la nit yi war a ñëw wut wut si wàllu euh, xëy na sax jàngoro mun na kaa fekk foofu noonu fi nga xam ne foofu nga war a ñëw fajoo musiba war a fa mun a nekk na loo xam ne c'est vraiment grave pour un hôpital fii à da ngay def jàngat ah nga def sam xel daw ci fi ñuy denc nit ñëpp am problème instant yi nii prison baa nga yëngatu fa ñuy denc nit ñi hôpitaux yi ñoo ngi yëngatu parce que grève yeeg sa xew waxutuma ak dal boo xam ne ñoo xalaat mu daanu kon da ngay jàpp ni Sénégal fa ñuy denc nit ñi ñoo ngi ñoo am problème waaye c'est-à-dire que ña fay denc nit ñi si boppam ñoom ñoo am problème du fi ñuy denc nit ñi. nañ defaraat fi ñuy denc nit ñi daal. doy na complication des maladies surtout avec euh, euh, malades yu bëri yi nga xamante ni moom la hôpital yi di accueillir c'est vraiment euh, mm-hmm. fi sa xel wala dara umu mel ni soo fa demee ñaaxare da lay gën a sax topp nag. Mm-hmm. en fait moi je a am na benn malade bu ma seeti woon le Dantec dafa damoon. mais j'étais ahurie bi ma duggee ci salle bi déjà déjà dans une chambre il je crois cinq personnes. mais toilette yi amul ndox hmm? y avait cinq personnes le dante la mooy xaw ma côté orthopédie la xaw ma donc nit ki dafa demoon ma seeti ko y avait cinq personnes parce que fii trois la fii benn dans les toilettes quand tu entres y a pas d'eau ça veut dire que chaise anglaise bi damatoon en fait hmm. yàqu na ba voilà en fait c'est décourageant d'en parler à un certain moment c'est pas la peine en fait voilà tu en parles aussi et ça ne ah, te bu ñu waxee hôpital tamit mën nañu wax ne que ni propreté lañ fay ut. d'abord mm-hmm. donc euh, service bi dafa war a nekk service bu nga xamante ni de haute qualité la. Mm-hmm. donc waruñu ñu am yenn problème yi. donc bu ñu jugee ci loolu dañuy daal di dem Cheikh si li nga xamante ni moom mooy ndóol bu ñu nemmeeku ñoo pas ndóol sax famine maanaam malnutrition bu ñu nemmeeku ak ñàkk lekk bu baax bi ci quatre régions yi lu ci mel ni Saint-Louis Matam Tambacounda ak Louga ñu daal di déglu élément bu nga xamante ni moom lañu ñu Ndeye Kumba defal te ñëwaat léegi léegi. ab jàngat ñëw na ci wàllu wér yaram ñeent ci ay gox nag ci Sénégal ñoo gën a sooxe lool ci jamono ji ci wàllu lekk la ñu fay def néew na lool ay ferñeent Ndar la maatam Tambacounda ak Louga xayma boobu nag ñu ngi ko fësalee ci af réewu Afrique soowu jant yi booba ba day nag kuréel boobu taxaw na temm rawatina waa Croix Rouge dinañ jël ay matuwaay lu ko mooy lekk gi mu ngay sooxe lool ca boobu la diwaan te mën nañ faa am jafe-jafe ci seen wàllu wér yaram bu dee Podor bokk na ci gox yi xam ne lim nañu ko ndax bu ñu sukkandikoo ci OMS di kuréel gi yor wàllu faj mi fukk ak juróom la xayma ci téeméer boo jël ñoom nag ñu nga ci fukk ak juróom ñett kon ñett tegu na ci beneen gox bu ñu wax muy Jurbel foofa lekk ga mucc fa ay ayib nañ ci jël ay matuwaay ndax fer ferñeent ya néew na fa lool euh, gis nga de on est bien au gi daal maanaam baaxul daal. mais li euh, fan dañuy lekk rek wax nañ si sax Diourbel parce que Diourbel tamit kii nañ ko parce que seen euh, kii géographique bi lañ wax donc euh, am na ay régions yi nga xamante ni cité leen mais quatre yi yi moo gën a am problème pour l'instant par rapport ak li nga xamante ni moom mooy malnutrition et tout. d'accord mu nekk lu lu doy waar parce que ce n'est pas que quatre régions Ndiaga man je pense que fii Dakar sax. Dakar gën am ñoo xam ne sax euh, sorante ñi ñi ñuy ciblé région yi waaw mais li ci war yëpp feeñeen ci war a am yëpp mu ngi ci nekk parce que euh, poche yi dara newutu ci mun naa ko wax ci gàttal bi mu ñëwee dafa wax nañu bay ceeb dundee nañu bay soble te xam nga ni yaasa c'est-à-dire que loolu loolu mooy lekk leen yaasa <laughs> c'est-à-dire que mooy lekk leen pour suur mais bu leen lekk bu am wér gu yaram ah <laughs> noonu laa ko jàngat noonu ngeen appliqué ce qui en passe. quatre régions bi au Sénégal c'est des confirmations rek par rapport ak rapport yi nga xamante ni tous les années ñu génne ko euh, su ma juumul cette année on nous a euh, euh, placé vingt-cinquième pays le plus pauvre du du au monde et je pense que yii nii ay xeetu signes yuy firndeel yu mel yu mel noonu la c'est c'est regrettable te lu nga xamante la Euh, kenn mënu ci dara parce que ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ne ci euh, nguur suñuy nguur à chaque fois moom ma nekk ministère de la santé amaana umpalewul ne yu mel nii am na ci euh, région yi parce que ñu ngi ak seen i sondage ñu ngi ak seen i agent sur le terrain mais néanmoins dañ ci noppi parce que ragal nañ sax mu jëm kaw seen post nekk en jeu et c'est ça le drame au au Sénégal. et à dire vrai est-ce que c'est réellement un problème que sanitaire sax parce que je pense que c'est boo xam ne c'est un de politique de manière générale. Mm-hmm. moo tax réew mi mën na ne euh, carrément euh, métti na quoi. je ne su dee loxo yu liggéey yu béy am na fi. Mhm. xoolal bitiku mbagg en fait nan la ñuy jaay ci biti. Mhm. xoolal xale yu xale yu góor yi. ni ni ñuy demee sport marchand ambulant yi dañu fees dellu ci dëkk bi. Mhm. Afrique mun nañu wax lu nekk ba mu des ne amuñu voilà ay góor yu liggéey ana àll bi seen politique ñoom se quoi quand ils viennent. ñun suñ problème mooy dañu am ay xale yu bëri yu fi nekk te amuñ ci luñ jàpp. pourquoi duñ mhm. dugg ci àll bi xotti ko euh, saison bu nekk ak. ak ak béy bi ñuy béy. Mhm. mais à un certain moment autosuffisance bi ñuy wax dinañ ko am mais on est là on parle à gauche à droite mais en définitive y a rien du tout. Mhm. c'est pourquoi tout à l'heure ci yi may la c'est décourageant. c'est fatigant de parler alors qu'il y a pas de solution. suñ bëggoon euh, euh, béy am na fii.

tey nag joxe benn solution mm-hmm. ci li ummi wax euh, damay euh, dégg ci information doonu lu ma teg sama bët doonu lu ma wóor. Mm-hmm. ñu wax ni chantier yi nga xam ne ñoom lañ jox chinois yi day am ay prisonniers chinois yoo xam ne dañuy ñëw ba wax nañ ma couleur bi nga xam ne ñoom moom la ñuy sol. Mm-hmm. mais tey xoolal ni kaso yi feesee dell ba amu ñoom ñoom amuñu solution. mais nañ jël ñenn ci ci ci euh, détenu yi yóbbu leen ci àll bi. di leen di rémunérer merci beaucoup c'est-à-dire que ñuy ñuy bay. comprendre nga di ci am dara. c'est-à-dire que solution la. source de revenu pare askan gi di ci. merci c'est-à-dire que ni nit euh, kii dañ ko dañ ko dañ ko àtte de travaux forcés. Mm-hmm. cest kooku war naa mën a bàyyi. te bu te àll bu àll àll waalo bii rek. Mm-hmm. mais problème mooy que Sénégal Sénégal. muy suñu njiit yi. Mm-hmm. yi fi jógee ak yi fi nekk. c'est-à-dire que discours. ñoo fi man mais dans la pratique. est-ce que comprendre léegi nag est-ce xam nga ni ñun euh, suñu politique euh, sénégalais yi ñoom ñooy dundal Afrique cest à ñoom ñooy dundal Afrique cest à ñoom dañoo waroon ubbi ay cabinet mhm. di woo africain yeneen euh, yeneen état yi di leen di leen di leen di leen jox ay xel. Mhm. di leen conseiller. Mhm. mais yeneen yeneen état yi dañuy déglu discours yu neex. ci wàllu développement te ñun duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko appliqué ñee rocc ko mm-hmm. ñoom appliqué ko mm-hmm. cest à ñun ñoo ñun ñoo tax Afrique développé mais ñun duñu développé mu mm-hmm. cest à discours politique pour parler pour politique mm-hmm. et puis ça Amina li Oumy di wax gis nga xale yi euh, ñoom foofu la ñu bàyyeekoo suñu sañoon des fa mm-hmm. maintenant euh, yabal nit ak loo koy yabalee xam ne xam nga bi mooy dem leen bàyyi mm-hmm. dem leen bàyyi avec des idées on est au vingtième siècle il pas de moyen moyen yi topp ci waaw joxoo nit ki li nga xam moom lay dem bàyyi ji je pense que c'est une un problème de volonté politique à mon avis ah, tout simplement bari na ci ay jeunes yu nga xamante ni bu nawet jotee dañ la naan dañuy nawet yi dañuy dem dañuy dañuy. mais seen nawet ñëw. ñu béy leen mais dañuy ah. continuer fa la ñuy def seen famille fa la ñuy am doom fa la ñuy fa la ñuy toog duñu bouger donc duñu nekk Dakar ne parce que man mbay ñoo si kii bi euh, vacances waaye nee na seen nañ noonu nañ xaar nañ xaar donc xaar euh, xale yi alal googu ñu def ci way ak tàccoo ki fecc. Ah, nañ ko financer jeunesse jeunes yi projet financé na jeunes yi. c'est-à-dire dañuy wax rek ah dañuy wax pour wax rek. mais même Ndiaga soo jëlee pourcentage jeunes yi jàng. Mhm. ak jeunes yi jàngul. regarde la différence sooy financé ñi nga xam ne dañuy def ay projet ça veut dire que ñun jàng nañu. Mhm. seen projet mën na aboutir. mais ñenn la ñuy financé ñi dem Dubaay ak ñi maanaam ñi pare ñi pare pour dem la ñuy la ñuy la ñuy financé. mais ñi nga xam ne am nañ force liggéey. président Wade président Wade dafay waxoon président Wade dafay waxoon nañ def Guana pour c'est-à-dire dundal dund dund maanaam bay dundee. Mm-hmm. mais après bi mu lancé Goana c'est-à-dire que ñëpp dañ see xalaat mais après fan la Goana mujj. mooy woykat yi ñoom ñoo taasu Goana. Mm, politiciens yi jël suuf si. dagg ko collecturé ko. Mm-hmm. sàcc ko. Mm-hmm. ni dañuy bay nangu ko ci baykat yi fan la mujjee. sa à loo teg après ñoom ñu ñoom ñu profité ko sàcc ko. nangu ko ci baykat yi nangu ko suufu jàmbur yi dundee ko ko loo ci xamul politiciens yi am na ñi nga xamante ne am nañ ay tool ca wàllu jënd ah, seen ay tracteur xam nga bu fekkoon ay citoyen nii lañ ñu du ñu ut ay tracteur mais xoolal dañu dem uti ay tracteur am ay hectares et hectares fële ca wàllu mais pour le propre compte. parce qu'ils que. Euh, c'est l'avenir voilà. au lieu ñu jox yi pour ñu mm-hmm. mën ci dimbali nit ñi. pour ñu mm-hmm. lekk ba suur wala naan ba màndi mais duñ ko def dañuy wut seen ay tracteurs wut seen ay machines yu baax dem wut ay hectares fële ca wàllu di bay di def si seen. on est un peu différent comme on est pas on est différent des des Américains Américains dafa bëgg dëkkam. ñun suñ bopp lañ bëgg individuellement. Mm. donc loolu nag dëkk bu ci nekk da ngay a je pense que signe bi signe bi njëkk fës mooy néeg boo dugg drapeau seen drapeau ñi fa. Mm. foo mu dugg seen je pense que c'est vraiment le premier signe. Amina on continue dem ci beneen point. waaw dañuy daal di dem nag ci carburant bi. Euh, Cheikh Tidiane ah élément bi bu paree nga jox ñu ko gis nga carburant nekk na carburant bi am problème toxique temps yi baaxul ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy respirer ah, parce que mën na indi li nga xamante ni moom mooy euh, maladie cardiaque mën na indi maladie respiratoire donc dañ dem seetaan élément bu noonu Cheikh Tidiane bu fekkee pare na. coowal carburant bu bon bi jibat na ci biir pénc bi bu ñu sukkandikoo ci rapport Diesel Seil doon na loo xamante ne daldi na suliwaat coowal carburant bu bon gi ñu nemmeeku ci Afrique Momar Ndaw Ascosen mu ngi xamle ne li ni lu garaaw parce que jàpp nañ ne santé population yi dañ ko war a respecté mais gis nañ ne tubaab yi ci bari amuñu respect boobu ñun buñ bëggee jël fi produit yóbbu ko seen réew lu ne lañ ñuy laaj gi ay normes te très souvent dañuy jël ay produits yoo xam ne baaxul wala en tout cas respecté wul normes yëpp envoyé ñu ko. kuréelu way jëfandikoo yu nekk ci Sénégal ngi sàkku ci nguur gi mu def ci ay prélèvement ngir mën a saytu bu baax ana lan moo sokkee ci li ni mel. kon nag li nga xam ne moom moo am mooy ñun ñu ngi demandé état bi très rapidement euh, mu def ay prélèvement ci dépôt yi. ak ci station service yi pour xool est-ce que produit yi nga xam ne ñu ngi koy jaay actuellement respecté na tëralin yi nga xam ne moo nekk ci décret bi nga xam ne état du Sénégal jël na ko modifié ko 2014 muy décret 2014 donc 961 euh, bi nga xam ne moo wax ne képp koo xam ne danga war a indi fii lu jëm ci xeetu carburant lii ak lii ak lii la war a respecté ci ay tëralin ak ay ay ferñeent yu ci nekk. way jëfandiku yi ngir fësal seen njàqare ci lu jëm ci seen wàll wàllu wérgu yaram ba tax ñuy sàkku ci nguur gi mu taxaw ci ni mu waree. yéen autorités yi fi ne fexe leen jàppale ñu ci ba nga xamante ne bii moom dinañ mën am jàmm ñun ñëpp Sénégal gépp am jàmm ci kàttanu borom Touba loolu moom mooy li nu gënal daal wax dëgg yàlla xam nga ñun moom mënuñoo daw te amuñu carburant li fi nekk rek la ñuy dunde ba yàlla jox ñu leneen loolu rek la ñuy dunde de ba yàlla jox ñu leneen leneen buñ sañeen nag lu baax rek moom moom moom mooy li nga xamante ni mooy liy ñëw li gën ci ñëpp daal moom la ñuy ñaan di ko sàkku saa bu ñu yeewoo ci kàttanu borom Tuubaa parce que seen a ngi xam le ne nemmeeku na ay lënc lënc lu jëm ci wàllu ceytu gi waaye lu ñu mën a nemmeeku mooy way jëfandiku yi ñoom ñoo ciy gën a loru gis nga élément bi mooy euh, carburant bi nga xam ne dañoo njortu ni amaama dafa am li nga xamante ni moom mooy toxique te bu ñu seet moytuwul nag mën na rey li nga xamante ni mooy trente mille personnes ah mën na leen fat faat prématurément ndax mu atmosphérique bi donc euh, voilà mu nekk phénomène bi nga xamante ni temps yi moom moo léw lëmbe ci réew mi ba nee nañ sax ku ci wax daanaka ñu porter la plainte tëj la <laughs> donc waaw li bi coow li bi coow li ne kur euh, dañoo génn ñu féetoo ci gouvernement def démenti maintenant keroog bi ñu koy waxtaanee fii ak Moustapha rek la vraie question est mooy ñu ne amut ñoom lu ñu wax ñu ne amut conseil négatif parce qu'ils se disent que peut-être que euh, mën na yëngal seen chaise wala euh, euh, signe de défaite la pour ñoom ko entre guillemets mais est-ce que li war dëgg-dëgg mooy quand ce genre de choses arrive que ce soit les carburants toxiques wala li li fi xew comme choléra di fi jotoon xew et est que li gën mooy ñu ñu jël le temps qu'il faut ki éclairent la lanterne des Sénégalais parce que quand même ils ont le droit de savoir. Mm -hmm. c'est pas vérifié ñu infirmer li ni mel joxe également de preuve. Mm -hmm. que c'était pas la bonne stratégie à waaw man nag euh, amaama foofu dama caa ànd ak euh, état bi ah. ni loolu amul parce que ci information man yi ma am bi coow lu jógee mooy bëri na ay sa à dire que euh, ay gëstu ay gëstu yu ñu def. def ci dem dem ci dem ci ay labo def analyse mais gisuñu benn benn benn benn benn benn ci këru essence sa këru këru këru këru trou essence yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk mais gisuñu benn boo xam ne war naa am euh, toxique boobu ñu ñu euh, ñuy wax kon boog c'est-à-dire que est-ce que après après ñun ci information bi nga xam ne jot nañ ko moom mooy cest à que dafa am benn benn kër koo xam ni euh, moo ngi fii Sénégal moom moo defoon mauvaise publicité boobu pour c'est-à-dire que jaay boppam yëkkati boppam rey yeneen yi parce que yooyu ay cest à ay turu turu turu turu turu turu turu ay turu wolof la yor ay Touba huile ak Touba nangam ak Touba nangam te kooku cest à nee nañu c'est-à-dire euh, kër googu ab këru nasaraan la. cest à ñoom ñoo indi woon mu moo yooyu. pour pour pour pour pour jàllale yenn yenn yenn information yi pour mën a gën a jarle mais damaa jàpp ni li état bi wax ni loolu amul te du fi mas a am man loolu laa gëm. Euh, mais njëga man sama xel xam fan lay téye foofu parce que ñi ni indexé déjà ONG bi ko def dooy du c'est pas un africain du du africain je pense que suisse lañ je crois. mais nag bul fàtte ni bul fàtte ni bitim réew ñoo taal Afrique mais je suis d'accord mais ñi ni indexé ñooñu euh, euh, comme am na tur yu ñu ci jot index mais ñooñu c'est pas des des ñoom ñoo ko moom cest à loolu mooy contradiction bi nekk sama bopp. c'est pas des sénégalais ñoo moom Euh, que c'est c'est ONG bi nga xamante ne moom moo joxee rapport boobu il a pris trois ans pour pouvoir euh, comprendre que euh, dafa am gaz toxique bu nga xamante ne wala carburant toxique buy dugg ci réew mi maintenant ku wax loolu tey état bi xëy démentir te jéemuñu wut benn moyen d'investigation wala de xool ndax essence bi non enquête mënul gaawee noonu ñoo ngi enquête loolu man am naa ci ay preuves ñoo ngi enquête nangu naa enquête de mais xam fu ma d'accord Amina mooy ñu tekk ba pare. mais dafa gaaw dafa juste ok d'accord naa d'accord naa parce que ba bërki démb man ba bërki démb euh, am na kër goo xam ne duggoon nañu fa. Mhm. ak seen i yooyu xaw ma nu ñu ko tuddee seen techniciens yi. mais a à dire ñoo ngi def enquête loolu kay genre uh-huh. te yaakaar naa ni ñoom li ñu wax la ànd ah. mais njaga ci élément bi boo seetaanee bu baax waa ji nee na moom jëndoon na ci li nga xamante ni moom mooy euh, carburant bi nga xam ne dafa am problème ba oto bi yàqu ci élément baa ngi nii chauffeur moom fu mu waxee ni jënd na donc su su ma déggee njaga dafay mel ni que ni voilà carburant bu nga xam ne dafa am duggul fii ba yàq li nga xam ne moom mooy oto waa ji donc man loolu laa ci doom indi en plus baaxul li nga xamante moom mooy suñu wér-gu-yaram parce que di respirer li nga xamante ni mën na la rey wala mën na la indi problème donc loolu moom war nañ ko xoolaat hmm. saytu ko. d'accord Oumy. en fait man sama problème mooy c'est des équations parce que dégg nañ fi euh, ceeb bi ñu fi indi woon te nit waru koo lekk xaw ma kan moo ko war a lekk. Hmm. et pourtant dugg si ci dëkk bi. Hmm. avant ñuy alarmé wu. déggoon nañ fi cuisse de poulet yu baaxul yi. egsi na ba nit ñi consommé ko ñu soog di alarmé wu et tant d'autres choses on donner tellement d'exemples c'est-à-dire. on fait quoi où sont nos autorités pourquoi ñu yàpp ma ñu yàpp ñu ba lu bon lu nekk ñu sotti ñu ko en fait parfois c'est tellement décourageant mm. décourageant que da naan ñoom lan lañu fi jëriñ c'est bien boo ñu génn wax kaas voilà mais après c'est la c'est la population qui subit mm. donc moi je me dis que demee bay wax naan carburant wu Afrique vraiment yàpp nañu et puis ban Afrique Sénégal lañ koy indi mm-hmm. ça veut dire que on est tellement il y de laxisme que voilà non parce que africains yi ñoo bëgg lu bon off dafa mel ni kon. parce que y' a d'autres pays yoo xam ni. même suñu nekkoon même si c'est en Afrique même suñuy frontière vraiment dañ ko war a taxaw ci anam bu nekk. Mm-hmm. mais lu bon lu nekk mënoo toog 6 mois te dégg nañu ne lu graaw jëlee nañ ko ci tel dëkk indi ko Sénégal pourquoi ñu ciblé ñu ah. pourquoi cette. Euh, parce que ñun ñoo bëgg lu yomb ñun lu yomb rek ñu indi dëkk bi sénégalais daal maanaam ñun suñu yaram yi. mais même ñun personnellement suñu ñu war a liggéey du jàll frontière yi mm-hmm. dina ñëw beneen dina ñëw parce que ñu nekk ci kaw c'est des personnes puissantes suñu xamee ne dëkk bi moo gën a oyof moo gën a yomb dugalal lu bon mm. mais on va nous bombarder de de n'importe quoi de déchets ah am na ou pas moi mhm. li nga wax moom ñun mun loolu lay ñaan. Mhm. vraiment képp kuy Sénégal loolu lay ñaan. mais quand même que déjà yow parfois nga nekk ci na ko njortoon. Mhm. ndax euh, da nga nekk ci oto oto oto oto jiitu la tey mais en tout cas c'est ce qu'on souhaite vraiment on souhaite que mu bañ a nekk dëgg parce que jàmm vraiment lan bëggee ci réew mi Amina. Euh, waaw bu li nga xamante ni mooy problème carburant bi dañuy daal dem ci li ni nii dañ koy ko waxtaanee ci Sénégal te moonte mi ngi bëri di law ci góor ñeeg jigéen ñi mag yeeg ndaw yi li ko waral mooy dëkkuwaayu yi tukki yi ni dem di ñëw par exemple ngay dem extérieur wala ci beneen réewu Afrique nga dem jëlee fa feebar yi ñëw indi ko ci li nga xamante ni moom mooy Sénégal da ñoom ñooy population bi li ñuy daal def dañuy daal seetaan élément bi nga xam ne moom lañu Aïcha Aïssata Diakhaté defaloon Cheikh Tidiane bu fekkee yemm na nga jox ñu élément bi. atum la ñu njëkk a gis cas bi njëkk ci Sida Sida nag doon na jàngoro joo xamante ne nii li ñu gisagul ab vaccin maanaam li ko mën a faj tax na ku ci ne kuréel bu ne di ci jóg di ci liggéey wala ñu ciy xar seen tànku tubéy ngir rek feebar bi bañ a mën a tegum tànk ci mim réew waaye nag ñu bëri ci askan bi dañu koy faral di fàtte ndax duñ ko xoolee ni paludisme wala ñu koy xoolee ni yenn jàngoro yi nga xam ne dañ koy gis ci mim réew ay jabet takk yi ni mel te moo ne doon na loo xamante ne nii mu ngi yori tànkam di raam saa jëm ci askan askan wi loolee nag li ko wut lu bari na ñenn ñi jàpp ni campagne de prévention yi moo demeewul ni ni mel wala sax mobilisation gi ci war ngir sensibilisation bi jóg moo ca des lépp nag doon loo xamante ni dañ ko war a waxtaanee ndax nag saa su ne sida mu ngay des ci mim réew gannaaw bu ñu sukkandikoo nag ci information yenn centre de recherche yi def lu tolloog junni juróom-benn téeméeri askan fi ci Sénégal ñoo ami bileb jàngoro ca noonu ñu ngi ko natt ci atuma 2013 fukki at ak juróom jàpp ñeent fukki sax ni ñiy fo wala ñiy gaañu lay jógee te moo ne de mu ngay jóge ci couple yi nga xamante ne nii daanaka ay couple yu stable lay doon ci atum 2001 benn programme jokk firndeel ni wàññeeku na bu baax ndax téeméer boo jël juróom fukk yépp booy seet jàngoroy sida amuñu ko atum 2010 ba atum 2013 ñu jàpp ni couple yi normal yi ñoom ñooy gën a am li nga xam ne moo di jàngorob sida ci yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ngi koy jànkuwanteel bu weesoo li ni mel itam polygamie wala sax ñàkk déggoo ci couple bàyyi sa soxna dem ci keneen fanweeri junne ak juróom-ñeenti doomu aadama am nañu li di VIH te juróomi junne ak ñeenti téeméer téeméeri doomu aadama doon ay tànk am nañ ko ca taxoon sax ñu indi ab programme bu yees boo xamante ne nii dippee ko femme saine enfant sain jigéen ñi nag doonoon ci ñu gën a laal ndax téeméer boo jël juróom-benn fukki ak juróom yépp daanaka soxna yi lay doon gannaaw nag ab enquête bu yaatu bu waa CNLS def lëkkaloo ceek centre de recherche clinique ak information boole kook agence nationale bi boot recherche yi jëm ci wàllu sida jàpp nañ ni ñii di drogué ñoo gën a laale ci mbir moomule ndax nag boo dee drogué wu si anam gi ngay sekkeeg sa moroom am na itamit ay plan d'action yoo xamante ni jëloon nañ ko dooree ko ci atum 2014 jàpp 2017 gi ñu dëgmal la askan bi nga xam ne dañoo amee li di sida di faju ci anam gu mu waree waaye dafa mel ni plan boobu dafa sooxe ci lu bari li ko wund nag ñu bari ñu ngi jàpp ni exode rural bi moo ko waral maanaam jóge ci gox ñëw ci gox ànd ak sab njàkkare di liggéey amoo liggéey nga joxe sa bopp ci àll bi ba jëlee ca jàngoro wala ji nga xam ne dañuy nekkoon bitim réew lu yàgg di fa foo wala sax am fa feebar gi indi ko ci miim réew ñeneen ñi jàpp ne sax jafe-jafe yi ñuy jànkuwante ci seen biir couple la polygamie da koy waral maanaam am ay soxna yu bari te fàgguwoo nekk ci kii jóge ci kee daal di koy jox keneen ka te bu fekkente ne ñeenti jabar nga am itam bu sa benn jabar amee day yomb loolu sa ñeenti jabar yépp am rawatina sax doom yi juddu loolee nag tax jot na temb ay kuréel jógaat encore d'accord ngir saytuwaat bi lépp jàngoro naam duñ ko waxtaanee lu bari ci mim réew waaye nag lu fi des ba tey la gis nga li nga xamante ni moom mooy élément bu Aïcha Diakhaté ñoo ñu amaama Aïcha Diakhaté si ay tënk daf ñu doon expliquer li nga xamante ni moom mooy sida farataalu ni ko maanaam feebar na bu nga xamante ni ñëw na depuis 86 mais nit ñi léegi dañu dem ba bàyyeetuñu seen xel ci sida à chaque fois bu ñu waxee nawet bi paludisme la ñuy xalaat bu ñu waxee beneen période dañuy xalaat beneen feebar te pourtant sida mi ngi fi te mi ngi def ay jéego yu bëri mi ngi rey ay nit yu bëri mi ngi ba pare kaa yaa ngi bëri mais waxuñu ci au contraire dañu waroon def ay sensibilisation di wax ci sida ñu wax na la ñuy moytoo na la ñuy def pour li nga xamante ni sida bañ a dal nit donc euh, yaakaar naa ni loolu moo doon élément bi nga xam ne moom la ñu Aïcha Diakhaté indiloon par rapport ak négligence bi nga xam ni euh, sénégalais yi négligé nañ ko. du ma ne négligence mais xel xel yi. Mhm. moo ci dul dem moo ci dul dem ndax tamit est nekk malade mhm. euh, euh, débauche. débauche waaw entre guillemets bien que c'est pas mhm. ñu bëri loolu lañ ko jàpp est ce que loolu gënu tax tamit ni. mu nekk tabou on n'en parle pas. ndax sida tamit nekk na feebar bu nga xam ne par exemple amaama boo ko amee nit dañ lay daw bu njëkk ba mais léegi tane na ak sensibilisation demee ci li nga xamante ni moom mooy hôpitaux yi dinañ waxtaan ak yow waxtaan ak sa famille wax nañ la feebar bi am nga ko mais ça ça veut pas dire que da nga da nga wàll par exemple nga jox nit loxo wala dara xam nga bu njëkk ba nit ñi boo daan wax nit diw am na si daale dañ lay daw mel ni kuy daw ku ñuy tooñ mais bon léegi ak médecine bi changé na benn changé <laughs> waaw looy reetaan. waaw reetaan <laughs> <laughs> nga ne Nessim bi avancé na léegi. avancé na benn xeetu avancement bi nga xamante ni daal léegi ni ñu daal ñu ngi ñu ngi ciy gën a yeewu. donc ñuy sensibiliser population ñu bàyyi xel bu baax xam ne sida mi ngi fi ba tey donc. mais Fane lu mu avancé avancé bi doo gis kenn mu ñëw ne la xam day gis kenn ñëw jàmbat sax wax dañ ne damaa palu waaye doo gis kenn mu ne damaa sida. Mhm. naturellement. non kenn wax damaa sida. ak ah, lu mu avancé am na soxla yoo xam ne sax waxuma la sida rek xam nga sida moom doy na soxla sëkk. Mhm. waaye am na soxla yoo xam ne sax kenn du ñëw nii la dama am naa ko. Mhm. cest à surtout sida nga xam ne yow c'est-à-dire bi nga xam ne moom moo lay traité sax amul droit wax ko kenn. Mhm. sida du. c'est le du sibru de. xam ne koo toll la nga naan damaa sida. cest à am na ñi sida sax bëgguñoo bëgguñu nit ñi xam ni sax dañoo. Ah, dañoo dañoo dañoo sida muy aspect tabou mhm. bi nga xam parce que tam mën na dal nit te bonam. Euh, du du du ñàkk fayda merci euh, kon. aspect tabou ba tey dafay des te moonte moo naa nekk yenn feebar yëpp parce que virus bi koy joxe mun na dal nit par des moyens yoo xam ne du moyen ba communication ba moo moo bon ca commencement ba la c'est-à-dire que communication ba euh, bon gi mu bon moom mooy moom mooy dañu doon wax naan ñuy sëy nu mu tëddee sëy koy joxe tudd ay nit ni ñoom ñoo war a am sida boobu ba nga nit ñi ragal ni heure boo nee damaa am sida ñu ni ñu ni ñu ñu defee ni ci xeet woowu ci xeet woowu nga bokk c'est-à-dire que communication ba ca commencement ba moom moom moo yàq lépp ah. man man man Fane Ndiaga j'irai un peu mm-hmm. ma question se pose autrement. Mm-hmm. ñiy dem ci hôpitaux yi ça veut am nañ moyen dagg ticket ñu faj leen ñu xool am nañ sida ou pas pour ñu sensibiliser leen. mais soo jëlee ñi nga xam ne dañuy yalwaan ñi yor pousse pousse yi. ñi nga xam ne vraiment ci marché yi toujours dañ leen di gis voilà mm-hmm. exactement ces gens là guddi dañuy séq ak seen jabar wala ak seen i gel wala leen ak leen ñu lan moo leen di protéger lan moo leen di sensibiliser fan la ñuy jëlee moyen wu am benn préservatif suñu amee 200 bu ñu butiku mbagg wala leen ak leen seen bopp la xalaat. donc vraiment ban politique la état def par rapport à cette à ces personnes là. parce que aussi ils font partie de la société. donc mais ñoo loolu noonu mooy law parce que da ngay gis ko yelwaan yor ñaari doom ñetti doom yu jigéen moom ci boppam àttanul boppam. donc ci mbedd bi lay fanaan wala dañuy boqante ça veut dire que kooku elle peut pas s'abstenir mm-hmm. temps bi mu fi nekk yëpp donc moom moom mun na dem ba wàllu ko ay doomam mm-hmm. doomam aussi dañuy Ama y a tellement de choses à dire au Sénégal que comme je vous dis hein c'est vraiment décourageant politique bi moom moo des wax bi bëri na mais doo gis action yi ni muy ni muy je de facteurs yoo xam ne donc on va beau en parler mais ñi koy wàllante ñu ngi continuer di ko wàllante. Mhm. tout à fait Nafi. je <laughs> am na. Euh, tout wala. ñu jeexale ak li nga xamante ni moom mooy Ebola bi. Cheikh Tidiane image yi bu fekkee yemb na ah nga sànni ñu ko ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy Ebola yi. Mhm. ci réewum ci réewum Côte d'Ivoire nag seetlu nañu ko ni Ebola depuis ñaari at tëj nañ seen ay frontières ci mel ni euh, Côte d'Ivoire li nga xamante ni moom mooy Libéria ci feebaru Ebola bi nga xamante ni faatoon nañu bëri léegi nag jamono ji jamono ji nag ubbiwaat nañ seen ay frontières ginnaaw feebar bi wàllante bi boobu jeex na ci Guinée ci benn fan ci weeru juin léegi nag ca Libéria Nigéria lu ëpp weer ak fukki fan ak juróom ñu ngi ba ñu ngi moytu waaye gisaguñu li nga xamante ni moom mooy feebar bu nga xamante ni des na fa ba tey donc lii laa leen indiloon par rapport li nga xamante ni moom mooy seen actu santé j'espère que jëlee ngeen si li nga xamante ni moom mooy ay xam-xam. jaajëfal nañ la bu baax a baax Amina. Mhm. Euh, merci vraiment à toi pour l'actualité santé l'actualité tout court c'est avec euh, Pape Ndiaye moom la ñuy àndal léegi dalal ko ci plateau bi.